Sheikh Mustafa santal dayob cant ya fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa. Sheikh Mustafa santal dayob cant ya fi gën amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Mustafa. Tadal nang nelaw ya Mustafa ñépp mokk nañ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 ma nga fa nekkal la fa rek <laughs> waaw ñu nekk barkeel mu waxoon ne nañ la ko indil ah, jàpp jàppalee la ko ci <laughs> yëngu ya rek ci ah, ñaan yàlla nag yëg-yëg bii bu leer bi nga am ci sëriñ bi <laughs> uh, xam gu gu wér gi ak yéene ju ju sell ji yàlla na ca nga yéene ko murid yëpp ah, yàlla na la ci yàlla defal ndam lu ko yàlla na ci yàlla defal ndam lu ko jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke ah. Ah, dégg nañ ko bu baax biñ la ñaanee nga yàgg fi daal mm-hmm. lool lool lool ci wér loolu rek lañ lay ñaan jërëjëf Mbacke yàlla na ko yàlla eggale ci jërëjëf Mbacke jàng ñëpp sax jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke jërëjëf ah loolu day sant loolu day sant sant loolu gën a gën a gën a santaat bu baax de. taxarkalla gën a yaasa suñu lépp. lépp ak cant di jiitu ji ak gën a bàyyi liggéey. gën a joxe suñu lépp. di leen gën a sant di leen gën a gërëm. di di di gën a am xel mu daal bu baax a baax mbàkk ci yéen. tabaarakallaa taxawaay bi yëg naa ko bu yàgg. woo soññu la. taxawaay bi ab soññu la ci ci. ci taalibe yëpp waaye nag ñu ngi lay ñaan gën naa sàmm gën naa aar gën naa wéral te gën naa yàggal dafa bàyyi ba nga àggal sa yéene ji seen bi moom xam nañ ko kon nag alhamdulilah yàlla mu ko def bu la xam noo ngi ñaan ci baaxu sëñ Tuubaa yàlla bàyyi la fi ba nga àggal sa yéene liggéey sama bañ ba ba ba ba ba mu gàttum la ñëpp xam nañ ne Gaston Ndang la ko wax. loolu itam moom dinu gën a gën a gën a gën a bi rek. muy mu di ko gën di ko gën di fas yéene sax dàkk ci liggéeyal ko. waaw ci suñu lépp. waaw liggéey bi suñu lépp. dëgg la yàlla nu moom. mu def jaamam. di nu waaye noonu sunu jaamu sax dañ ko ci dañ cay war a fasaale liggéeyal ko sëriñ bi. boole ko yeneen lañ ci mën a boole. incha allah incha allah. loolu la demee incha allah loolu eh, loolu yal nañu sëriñ bi gàttal te wamatal na boppam. amiin amiin jërëjëf ndoxo maa ngi wër tuuba batum aynu rahmatin waxay nuuri daa dem leen dëkkee ki sayqi mustafa ma nga yeesalaa tuuba bi tajdiidi diinihi yërëm ndaw ña magal mag ña moo doon mustafa